macha allah nañ ko foogoon sax da kaa romb neex na torop ak la mag Sénégalais bi à chaque fois bu wootee rek day jéggi dayoo ba moom sax daf koy jaaxal parce que gis nañu li nga woote woon ci koor gi def nga ko Yaay Fall mu jéggi dayoo ñu gisaat safaat gi macha allah ñu bëri wuy si nañ la. waaw ndax la ñoom ñoo baax lay baax sëñ Fall ku ma yëgal mu ñëw ku ma yëgalul ma ñëw ña ma yëgalul sax ñoo gën a mën a ñëw ne ña ma doomu aadama yi ñoo bëgg suñu loolu yàlla moo ko def du man ma ci sant yàlla bu baax a baax. d'accord euh, ci biir loolu nag euh, ñu gis ne euh, def muy voyante jamono ci situation politique bi yaay faal tegg na dayoo ak fu jéggi dayoo yëpp yow lan ngay gis wala boo tuddee lan lañ lay ci li nga xam ne wax ñu yaakaar ne sa bopp tax nga fekk seen intérêt tax nga wax euh, ba ma génnee comme li nga wax sama politique ba ma génnee si affaire Sonko dina génnee euh, na am nañu ko am nañu ko si loolu bu Sonko la sarax yoo xamante ni moom lañ ko war a defar parce que ak Cheikh Bara Ndiaye buñ gaaw a génne leen fi fekk tey ñoom mun naa mel si ñoom daanaka li ma wax saa su ne ànd ak xaree waxee Sonko ak ki nga xam ne moo di Cheikh Bara Ndiaye du ñu jub fi ñu tudd tànk sarax yi nga xam ne wax nga ko génne nañ génnewuñ ko kër doo a say bopp njariñ parce que jamono ji ñu toll ñoom nekk ñu si jàmm daal ñu ci fitna bu metti te sax même bu doon seeti ñaata ku xalaat sa xel lay xam ne kaso nekkul nit ki am liberté mais dafa sonn rawatina koo xam ne amul liberté si boppam loolu dafa metti waaw ñu koy masaw bépp Sénégalais ndax réew mi jàmm rek moo fi xaj lu dul jàmm dara dàq ko jàmm rek moo neex jàmm ak salaam violation fitna neexul tey jii yaay baa dafa woote ambiance ñëppay bëgg sant Serigne Touba ñëpp bëgg ñëpp kontaan mu gën woote leneen di jàmm suñu réew mi jàmm moo fi def ba ba faw daal. d'accord sarax yi lan ak lan la yaay Fall toog fàttaliwaat ko Sénégalais yi ak mbokk ñi nga xam ne moo di Sonko ak Cheikh Bara Ndiaye. waaw ñu bokk ak Sonko ñu bokk ak Cheikh Bara Ndiaye da leen di neex man proposé moo nag ak benn gileem mais sarax boobu nag dafa am nuñ ko war a defee bu leen intéressé man buñ ma woowee wax leen defal leen ko seen bopp nii lañ koy defee ndax man li may gis neexuma lu ma wax nag parce que langue politique moo doy waar léegi te man sama yaay sama papa dañ maa yónni yaakaar ci ma te lu dul yoonu Serigne Touba ak maam Cheikh Rafal nekkuma ci man Serigne Touba laay xeexal Serigne Touba laay waxal Serigne Touba laay màggal moom laay lu loolu bëgguma affaire politique intéressé rek nañ ko def ndax man lu tax ma wax la mooy chaque jour maa ngi bëgg jàmm am si réew ñun jàmm rek si la ñu def lu jàmm bëgguñu ko jàmm rek lañ bëgg moo tax ñu wax sarax boobu ñoom ñoom ñu def d'accord euh, ci biir loolu bu weesuwee sarax yooyu nga xam ne nag moom lañ war a génnee euh, pour ñi mën a jóg daal di ñëwaat ci ànd politique bi est-ce que buñ ko génnee bañ a jóg bu ñu ñëwee Sonko dina bokk ci candidat yi. waaw loolu yàlla moo xam mais euh, Sonko nag tal wér gi yaramam balaa muy tel ay politique da tel boppam wér-gu-yaramam da war a njëkk a tal réew mi su ma nekkoon suuf ko sodu ko xëccu parce que ni luy xëccu di ko fantoo na nekk lu gën sew réew mi dafa metti te moom jamono ji wéeri ñu passé coono bi mu daj rek non nit ku ko daj ku nekk il faut nga dal waat ba pare ñu soog a tal leneen moom instant yi dal na leneen waaye di leen yàq mooy boobu bu ñu gisee nit ku nekk si yoonam di dem rek lu ñu bëgg mooy tilimal deram yàq ko salteel ko bu ñu gisee si moom vidéo génne bu ñu si moom audio génne loolu baaxul ni dangay sàng doomu aadama sutura parce que yàlla moom mu ngeeg say muut yoo xam ne génne woon loolu taw bi nga te yàlla nëbbal la loolu yàlla moo kuy sàng sutura doomu aadama nañ bàyyi yàqante bi ak nga dem ko tasaare ko yàq fii comme ne dem day toroxal la doomu tooñ na ko def na ko lu bon te maanaam noon mooy ki gën a jege rek mu sooy yàq waaw si bon la bokk doomu aadama yàlla da koo bëgg ku koy suturaal nañ bàyyi jàmbur bi ni jàmbur di ko wax ay noon bokk kii te di nga xas moom mooy taxaw di leen fecc di leen bégalaat kon nañ bàyyi waat jàmbur bi jàmbur doomu aadama kenn du ko topp di di ñaaw loolu baaxul parce que lu ma sëñ loolu nag ci lu sa téléphone tey boo bëgg boo sañoon doo bëgg ku la ko wax kon yow wax nit ki. c'est important c'est important ak ah, bu loolu weesoo nag ñu ngi jëm ci màggal lan Yaay Fall di waajal ak gannaaw safar bi nga xam ne nag def na ko daal di ci ay. man chaque jour maa ngi màggal ba jour màggal damay màggal loolu Serigne Touba bi aw ma si saa gi ginnaaw sa kanam rek ku ñëw fekk ma si ñëw ñu àndal ñëpp laa si liggéey Serigne Touba Yaay Fall woon la yoru mooy million ma leen mooy lu ma am sama fukk sama juróom bu ma am dama koy def ci Serigne Touba su ma liggéeyoon ay millions dama koy def ci Serigne Touba ma liggéey téeméer dama koy def ci Serigne Touba man sama yaay sama papa Serigne Touba Cheikh Ibra jeex na liggéeyalu ma kenn liggéeyalu ma sama bopp liggéeyalu ma kenn sama yaay sama papa sama Serigne Touba Cheikh Ibra jeex na. Fara su boo amulee question yooyu ci yokk rek ñu daal di tëj li nga xam ne noonu la ngay jege si nga wax question bi. ñu naan la euh, seen daal d'accord rek seen ma saboote benn seen seede man li ma xam laa xam kuy fay kuy tàkk di fay daa fekk man du ma fay ma may dee ma licencié fu ma wi weet ma wan la preuve man loolu laa licencié mais keneen la ma xam moom bu dëgg yàlla concerné ma parce que yàlla da may may na bu nga xeebal xam-xamam voilà alors lan ngay wax dëgg loolu laay communiqué dama communiqué su far rek dëgg laay communiqué ak li ma xam lu ma xamul lu ma ci sóobu lu ma xamul lu ma ci dugg sama bakkan bi sëñ Tuubaa laa koy waaye dama ko jox benn mindaaf bi dox si kaw suuf xalaat ko. ok lan ngay wax ñi nga xamante ne moom ñoom ñooy sa mbokk yi nga xam ne yéen a bokk bi yéeme tey tey tey gisuñu leen lan moo tax ñu wala da ngeen koy yëgal. moo safar gi yëgle naa ko mais jur ma ko jàppee moo am nañ ñu bari woowu ma leen dañuy yëg ne yaay faale safar ñëpp ñëw ak Serigne Sall yëngati ma sama téléphone woo benn Serigne dafa màggal gi xam na dimanche gi xam na bëri nay programme te bëgguma teg nit dara coono mais bëri na nag jàngkat yi fi ñëw bëri na ay autorités yi fi ñëw ñu ngeen gis ak ñu ngeen gisul mais sant yàlla parce que woo teg nit ñi ñëw rek loolu sant yàlla la damay sant yàlla su ko fekkoon ak Serigne Sall lay jàppale sa propre moyen rek ngay demee pour safal doo kenn jàppale wala amul bu ma jàppale nee naa leen ki nekk sama ginnaaw mooy suñu Tuubaa Seere Faal bu ko weesoo gisuma benn nit te nag ma soxla jëf barke bu ma gisoon bu ma defal damay taxaw nii wax ko moom public bi nga diw moo ku ma jàppale Sénégal xam nga lan lan man caméra tàkk ñuy baax teral leen te foofu fu ma fay xaar ma xam ne doo ma teral ndax man géer laa yaa ngi comprendre du xale laa mais kilifa laa damay seet damay ñaan bu ma fekk sama liggéey Serigne Touba bi di ma lëbës damay taxaw ne diw moo ma jàppale ku deful du ma wax ku deful loo koy waxal avant may safal bu ne dañ naa ko ndax li ma war a damaa sànc sama kër ndaay sama kër baay di ko liggéey yoon sama kër gisuma kenn ku ma si jàppale nag yaay Fall boo amee ñooy sant gërëm bala nga tàggatoo rek li nga xam ne moom di interview. waa di sant waa diaspora bi ndax ñoom tamit au moins su ma xewlee sama bis lu gàtt gàtt na yëkkati seen alal def ko si ak ñeneen ñoo xamante ni mënu ma la compté mais bu fekkee nit ñi ñëwal nii ku ne la nga am sa àttee da koy gën jox ko yaay Fall maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm man du ma sa xëjëf waaw ñoom mention spéciale am na ñoo xam ne su ma taalee sama live TikTok ni TikTok ak Seydina Mouhamed fa la ñuy toog ba seen heure bi yëpp ak seen temps bi day jeex bak alxuraan karim loolu ma leen di sant di leen di gërëm yéen ñi ma bëgg nag tax xaw ma leen maa leen gën a bëgg parce que fu ma nit di naa yaay faal dañ laa bëgg yaay faal ci taaliba lay yar teggin leneen lu dul loolu moo tax may liggéey ndax moom dafa daj lu metti dimbi lu metti kon su ko yàlla dimbalee mu jur doom bu mel nii Mbacke Serigne Saliou Mbacke doomam bi mooy taxaw tere si diggu naaw leen te lu ma xewle mu jóge ba njaareem ñëw toog musuma xewle dara ci àdduna te ñëwut taxaw ci sama wet te bu ko neexoon ne aw ma jot mënumaa ñëw mais def ko day ñëw ma gis ko sama wet sama xel di gën a dal may gën a am fit ndax doom day am ñaanu waaju su amee ñaanu waaju bul tiit bu ragal te sama ko côté parent moom maa ngi sent yàlla samay côté nawle maa ngi ciy di wax naan ma maa ngi ñaan yàlla képp kuy dund ci kaw suuf tàllal naa la loxo nga ñaanal ma ma yàgg fi loolu di dimbali askan bi muy sëriñ bi muy ak ku ma tuddoon ñëpp maa ngi ñaan yàlla képp ku ma tooñ nag te yóbbu ma ko tamit maa ngi lay jéggalu ngir jëmmi sëriñ Touba man yéenewu ma kenn lu ñaaw ma sëñ Touba laa yaakaar te moom dafa jéggal ay noonam moo tax nit ku baax bul xoolee say noonu dara de leen di jéggal ngir suñ Touba ku def lu bon jéggal naa la ngir suñ Touba waaw loolu laa am si lu may wax di ñaanal suñ Mountakha Bassirou yàlla gi nag ñu dugg si bisimilah rahmaani rahim eggale ko ak alhamdulilah rabil alamin man ba màggalu du ma bàyyi di ñaan yàlla nag ñëpp ki nga xamante ni murit nga di liggéeyal Serigne Touba del bàyyi xel Yaay Fall ndax Yaay lay liggéeyal te ku si def lu baax ma taxawe ko nii waxee ko nii ku deful dara nag du ma wax di wax Mouhamed Niang mention spéciale nit boobu ku ma taxawu la tey bu ngeen bu ko gisul rek daaw programme moom xasa waxaale ba pare mënatu ko gàntal mën a ko demal yeneen jànkat yaa ngi jànkat yëpp a ngi fi su ma leen limee jum yàlla na jàmm yàgg